gannaaw biñ la xamalee nag julli bu ne fa muxtaaram tàmbalee ak fa mu yem ak fa daroor yoom tàmbalee ak fa mu yem soo julliwul ca muxtaar ma te yaa ko tey amoo benn ngànt ba muxtaar ma jeex rek da nga gàddu bàkkaar bu rëy rëy boo xasee julli rek ci waxtu yi moo xam ci muxtaar la moo xam ci daroor yi la dañu wax ne joox nga maanaam julli nga ci waxtu wa soo bàyyee nag ba daroor yi jeex nga door di julli mooy tudd ak fay maanaam fay bor julli moom bu yaari waxtoom yépp jeexee nga door di julli dangaa fay bor waaye julli woo ci waxtu wa boo jullee nag ca daroor yu te nga xam ne ngànta ko waral julli nga ci waxtu wa te doo ca am bakkaar bu fekkee ngànt waralu ko nag julli nga ci waxtu waaye da nga gàddu bakkaar bu rëy rëy leen ko waxe léegi mu wax la nag kon ngànt yi ngànt yi nga xam ne mooy tax nga sañ a julli ca daroor yu te doo amee bakkaar moo yii bi ci jëkk mooy jigéen amee woon baax mbaa mu amee traité wasin bañ tolloo ca waxtu muxtaar amatul laab bañ tolloo ca daroor yi nag mu daldi laab daldi julli ca daroor yi kooku dara du ko ca war mel ne ni sax dañ koy bindal tuyaaba yi ku julli woon ca muxtaar ndax moom ñàkkam ñàkkal ne julli ca muxtaar ma ngànt la lu ko yàlla tegoon mooy ñàkk gaa laab ba tey koo xam ne ba mu tolloo ca muxtaar ma dafa kàllafee gutoon di gone naka muxtaar ma jeex bañ àgg ci daroor yi mu daldi gis màndarga mu ko wane ko moom mii kat kàllafe na mu daldi julli ca daroor yi kooku ba tey du ca am bàkkaar kooku sax bu fekkee julli woon na ca muxtaar ma itam mu wër ko ne booba gone la xam ne julli ko luy sopp rek la ci moom su tolloo ca daroor yi gis màndargam kàllafe faaw mu war a baamu julli ga ndax julli gam julli woon ci muxtaar lu ñu soppoon la te julli gi bi julli léegi ci daroor yi farata la waru gar la ba tey ku doon nelaw mbaa mu doon xëm mbaa mu tàggoo woon ak sagoom ni ki doon say li ñuy wax ak ndof dikkaloon ko ca bam tolloo ca muxtaar bañ demee nag ba muxtaar jeex bañ dugg daroor yi bu fekkee daroon nelaw mu yeewu mbaa bu doon xëm mu ximmi mbaa bu doon dof mu tane ba ànd ak sagoom yooyu yëpp mu daal julli ca daroor yi du am bàkkaar ndax loolu lépp ngànt la lu ko yàlla teg la kufur ji wax nag muy weddi mooy koo xam ne dafa nekkoon ci kéefar ba muxtaar jeex ba muy tuub nag fekk daroor yi dugg mu daldi julli ca daroor yi kooku ba tey du am bàkkaar koo xam ne itam daa nekkoon ci lislaam gannaaw ba mu wax mbaa mu def lu ko ci génne bañ weesoo muxtaar ma nag ñu waar ko ba mu delsiwaat ca lislaam mu daldi julli ca daroor yi ba tey kooku du am bakkaar màndi moom dañ koy def yaari wàll màndi goo xam ne moo ko tey naan luy màndal muy màndi gu araam bu ko defee ba daroor yi ñëw mu door a ximmi door a julli du tee mu am bakkaar bu rëy rëy ci yeexee julli ga mu ànd ak bakkaaru màndi ga bu dee màndi goo xam nag teyu ko woon dafa naan loo xam ne du sàngara daawul màndal moom mu màndal ko wala muy faju rek naan garab mu màndal ko kooku mook nelaw ak xam ñooyamoo su muxtaar ma jeexee mu door a ximmi julli ca daroor yi du tax mu am bàkkaar képp koo xam ne ame woon na ngànt bu ngànt la jeexee dañuy seet la des ci waxtu wa ndax mën na faa laab ba noppi am ci ab rakk am ndéet su fekkee ne sangu farata moo ko waral dañuy tolloole diir boo xam ne war na faa mën a sangu farata bu fekkee jàpp rek moo ko waral ñu tolloole diir boo xam ne jàpp xaj na fa gannaaw bu ngànt la jeexee bu ñu tolloolee ne mën na fee laab ba noppi am ca julli ga ab ràkka kon julli googa war na ko bu ko defut ba waxtu wa jeexi dutee rek muy bor moom war a fay ba mu des nag weddi yàlla weddi yàlla moom ngànt la woon ñu waxoon ne ku nekkoon ci kéefër ca jamonoy muxtaar ba ca daroor yi mu door a dugg ci lislaam daldi julli du am bàkkaar kooku nag moom lañu dul tolloo leel waxtu mën a laabe képp koo xam ne daal nekkutoon ci lislaam bu tuubee dañu xool rek la des ci waxtu wa ndax mën na caa amub rakkaam déet duñ fa tolloole ngir bu mën a jàppe mbaa bu mën a sangoo farata saa yoo xam ne rek la des ci waxtu wa mën nañ ca amub rakka ñu jàpp ne julli googa war na ko ci kaw nit ñi tolloolee laab ga mooy da ngay wax ne jigéen bu gisoon baax wala mu toll ci amee deret wesin bu demoon ba deretam jeex laata jant bi so ñu gis ne suñ digganteeg jant bi sokat mënees na fee laab ba noppi julli fi juróom ràkk dañu wax ne kon jigéen jooju tisbaar ak takkusaan yaar yépp war na ko ndax mën naa laab ba noppi julil ñeenti rakk tisbaar dugalal benn takkusaan balaa jant bee so te julli moom boo ko dugalalee benn rakk ci waxtoom rek joox nga ko mooy julli nga léppam ci waxtoom loolu sax mooy bu fekkee jigéen ji nekkul di tukki bu doon tukki moom su deret ja jeexee ñu gis ne mën naa laab digganteelu jant bi so mën faa julli ñetti rakk dañuy jàpp ne kon tisbaar war na ko takkusaan war na ko ndax ñetti rakk yi day moomale ñaar ña tisbaar moomale benn ba takkusaan balaa waxtu waa jeex maa balaa jant beesoo te julli moom boo ko dugalee benn rakk day mel ne léppam nga dugal nga xam ne yooyu jamono bu sàgganee ba julli wuttam loola bor lay doon bu gàllu ci aw loosam ba tey bu fekkoon ne jigéen dafa gis baax wala mu am doom di gis deret wala sax mu ku yàlla tegoon ak ndof wala xam ci guddi gi nag muy dema dem ba nga xamee ne digganteem ak fajar bu dee jigéen ji ba mu setee wala bu dee kadafoon mbaa muy xam ba mu ximmee tane ku seet digganteem ak fenku fajar mënees na faa julli ñeenti rakk dañuy jàpp ne kon timis ak gée yaar yépp war na ko ndegam mën naa laa ba noppi julli ñeenti rakk rek timis war na ko gée war na ko ndax dañuy jàppal ñetti rakk yi timis daldi mën a dugalal gée benn ci waxtu wa balaa waxtu waa jeex te julli bu ne moom boo ko dugalalee ab rakk ci waxtoom rek jot nga ko lépp day mel ne dugal nga lépp lépp gannaaw ba ngànt la dañee nag moo xam njëkk jant bi solo moo xam njëkk fajar di fenk la bu ñu seetloo genn julli rek xaj fa dañ koy wax ne ko kon genn gu mujj ga rek bu dee tisbaar takkusaan ga mujj muy takkusaan moom rek koy war bu dee timis ak gee ga ca mujj muy gee rek moo koy war ndegam yaar yëpp xaju ca moom ga ca mujj rek moo koy war ga ca des jaanam wàcc na ca bu doon julli suba mi nga xam ne bokkut ak kenn waxtu itam su ngantam loolee dañee moo xam deret ju jeex la wala ak ndof mbaa xamte lu jeex dañuy seet diggante boobu ak jant bi di fenk su fekkee ne mën na fee laab am ca benn rakk rek julli suba ga war na ko bu fekkee ne nag laab am ci ab rakk xaju fa kon julli suba ga wàcc na ko waru ko loolu takk-takk la daa wax ne bu ñu nee waxtu yi day bu ci ngant li dañoon julli ga dana ko war xam ne kon biñ demee ba ca waxtu woowa ngant la far ko dal kon julli ga wàcc na ko mel ne bu ñu nee jigéen bu gisoon baax wala mu amee traité wasin ba mu demee nag ba digganteem ak jant bi bëgg a so mu daldi laab ñu gis ne itam mën na fee sangu julli fi juróomi ràkka nga waxoon ne kon tisbaar war na ko takkusaan war na ko su ko julliwut ba tey muy bor rek waaye war na ko da ngay dellu wax ne nag su fekkoon ne jigéen tisbaar dafa jot julliwut takkusaan jot julliwut te moom amul benn ngànt ba mu demee nag ba digganteem ak jant di soo ñu mën faa julli juróomi ràkka mu daldi gis deret da ngay daldi wax ne kon tisbaar waru ko takkusaan waru ko su fekkoon ne nag ba mu gis deret ja genn julli moo ca xaj niki boobu mënu su faa julli juróomi ràkka benn mbaa ñaar mbaa ñett mbaa ñeent lañ bu dee jigéen bu demee ba laab wala bu dee ku dof wala muy xam bu demee ba ximmi na fay tisbaar ndax moom fekk ko woon ci ngànt bu doon ci guddi it amul ngànt waaye taxul mu julli timis taxul mu julli gee mu dem a dem nag ba suñ digganteeg fajar di fenk ñu mën faa julli ñeent rakk rek yem ci mu daldi am ngànt nag niki bu dee jigéen mu gis deret wala ku mën doon rek xëm wala ndof dal ko dañuy wax ne kon timis ak geegoogee dara du ko ci war ndax boo waxtu ba desee loo xam ne ñoom ñaar xaj nañ ci rek la ko ngànt li dikkal kon yaar yépp wàcc na ko su fekkoon ne nag ba ko ngànt lay dikkal benn rakk rek lañ mën a julli suñ digganteeg fenkuk fajar wala ñaar mbaa ñett dañuy moomale loola gee daal di xam ne kon ngànt li mi ngi ko dale ci gee lu yàgg-yàgg nag bu ngànt li jeexee na fay timis moom ndax timis amewu ca ngànt ngànt li ci gee rek la ko dale bu doon julli suba it ba suba jotee moom julliwut ñu dem nag ba suñ digganteeg jant bi fenk ñu mën faa julli benn rakk dong mu daldi gis deret wala ku mën doon ci góor ak jigéen xam dikkal ko wala ak ndof dikkal ko julli suba ga wàcc na ko ndax daa gisee ngànt la ci waxtu woo xam ne bu ca ngàntam dañoon julli ga war ko kon nag kon nag kon nag bu ko ca ngànt li dikkalee da koy daldi wàcc muy takk-takk bu yaatoo yaatu mën nga koo jàppe noonu dafa am na xeeti ngànt yoo xam ne moom bu ngànt la dañee bu ñu seet ba xam la des ci waxtu wa mën na faa laab am ca bàkka wala déet nga caa waxoon benn muy al kufru weddi ak yéefar da nga ne woon saa yu laabee rek te waxtu wa ñu mën ca amub rakk rek dañu waral ci moom julli googa dañu seet ba xam mën naa laab ba noppi door ci amub rakk wala déet dañuy jekki-jekki rek ne ndekam ab rakk xaj na ci rek julli googa war na ko mu dolli ca nag nelaw ak fàtte wala yëgadi yu mel ne yooyu moom bu ko daloon bu waxtu wa jeexit du te rek bu dee ci yoonu Malik dañ ko koy fayloo mel ne ku nelaw ba waxtu julli wa jeex dara desu ca wala mu fàtte ba waxtu julli ga jeex wala mu yëgadi faay xelam demul ci julli ga sax ba waxtu wa jeex tàkk itam du teeñ waral ci moom mu fay julli ga ñu seetlu foofu nag ne bu la wóoree ne waxtu wi jot na te boo tëddee nelaw bala ngaa yeewu rekk moxtaar mi jàll rawante na bala ngaa yeewu far daroor yu ba tey jàll kon doo sañ a tëdd nelaw lu may nga bàyyi fa koo xam ne moo la yee balaa waxtu wee jàll mu yee la nga jóg julli su fekkee waxtu wi jotagut nag moom mën ngaa tëdd nelaw bu yàlla dogalee yeewoo itam loola ngànt la waaye da nga waxtu wi jot na te jàpp nga ne yow boo xasee tëdd doo yeewuwaat ba kere waxtu wi jeex kon yow doo sañ a tëdd nelaw mbaa faaw nga bàyyi fa koo xam ne balaa waxtu wee jeex mu yee la ku gàntoo julli waaye gëm na ne julli war na ne moom dafa tàyyal rek waaye gëm na ne julli war na dañuy bàyyi ba waxtu wa jot ilimaan ji woolu ko digal ko julli su ko digalee nag muy bañ mën na koy dóor ak a xupp te di ko ko sant ka santaat ba nga xamee ni waxtu wa julli ca benn ràkk sax bu sotti xawuta yomb yooyu jamono nag bu nangoo julli baax na bu nanguwute julli ñu rey ko rey ga reyub jotam la mooy day jàpp ne ab jullit la ak njullitam moo rafetul rek daañu ko sang sangu ko jullee ko suul ko ca armeelu jullit ña waaye dañoo bëgg nag ñu woyofal jullee ga ak rob ga waa ju baax bañ faa teew mbooloo mu bari bañ faa teew ndax loola xupp ñeneen ñi ci des ba li mu def bu ëllëgee keneen du ko defaat koo xam ne nag daa nangu wut a julli te daa wax ni moom tàyyeel teewu ko julli julli ci boppam la gëmul ne lu war la kooku bu fekkee nekkoon na ci lislaam dañuy jàpp ne kon daa murtad maanaam daa génn ci lislaam dañ koy tuuloo ne ko delluwaatal gëm ne julli war na te di ko def loolu nag daañu ko may diirum ñetti fan di ko jàjj ka waar ba xam dana deltu gannaawam déet bu ñetti fan ñi matee nag te nu mu wute deltu gannaaw ñu rey ko moom nag buñ ko reyee reyu kéefar lay doon maanaam dañuy jàpp ne ab yéefar la kenn du ko sang kenn du ko sang kenn du ko jullee kenn du ko suul fa armeelu jullit ña ña ko war a doon ci yoon ba tey duñu ko doon ñu bañ a fàtte ne gone bu xasee am juróom-ñaari at moo xam góor la moo xam jigéen la nañu koy digal julli su boobaa nag bu julli wuttam jaruta dóor su demee nag ba am fukki at nañu koy digal julli te yooyu jamono su bañee ñu dóor ko ndegam defe ne ni dóoree dana am njariñ te dóoree bu mu àgg ci damm benn yaxam wala muy ñaawal yàpp yaramam foofu nag la julli wuute koor koor dañuy wax ne duñu ko digal gone soppuñu ko ci moom ak sib sax lay doon ndax koor gi da koy néewal doole rek mel na ne am na ñuy wax naa dañ koy bàyyi rek moom gone gi mu wóor ndax mu tàggatu ci bu doonee mag fekk mu tàmm ko waaye ñoom daal dañuy wax ne gone moom soppuñu ci moom koor dañu koy sib sax bañ kaa def ci moom moo gën def ga